Wahne, ne bu ma ñëwee tey def motion préjudicielle waaye ay principe ay principe rek la principe nord mooy principe nawet principe janvier mooy principe décembre wala juillet y a yàgg wax ne ay député mënuñu dugal ay proposition traite, du leen traité un député dugal proposition ñu ne ñuk proposition lu ko jitu ñu waxtaan ci une proposition loolu du dëgg ñetti président yëpp laay interpellé président assemblée nationale l'a njëkk interpellé parce que c'est sa première responsabilité c'est sa première c'est ça bu amee moom la waaye itam samay mbokk député yi injustice di am tey ñu pour corriger une injustice une fraude au règlement intérieur waaw bu ñuy corriger injustice ñu def injustice waaye assemblée bi bu nekkee sama intérêt sama yoon le 17 mai 2024 la double proposition de commission d'enquête parlementaire sur la situation environnementale de la Falémé 17 mai or règlement intérieur il faut chaque proposition bureau bi quel sort il va réserver à cette proposition Vous connaissez la proposition de Baron. mais da nga président le euh, euh président Ayib du ma une proposition sur la situation environnementale de la FALEME. 2019 organisation mondiale organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal mais 2019 la FALEME est en état de mort clinique Je ma le 17 mai pour ñu taxawal une ci assemblée commission d'enquête parlementaire dëkk yu nekk Falémé yaa ngi dee kenn waxu ci dara tey ñu ñëw di nous réellement règlement Nous avons fait des te sama bos moo

ma ne nañu taxawal commission d'enquête parlementaire pour xool ndax dëgg la ndaxte suñu doom ñoo koy lekk te suukar la te suukar baaxul ci yaramu nit rawatina ci yaramu xale on a jamais regardé pourquoi ngeen toog fii di ko seetaan le 7 mai 2024 ma dugal commission d'enquête parlementaire sur la situation des travailleurs du fonds d'entretien routier autonome FERA plus de 20 000 travailleurs 6 mois sans salaire 8 mois nous avons 12 mois sans salaire assemblée ne yoonam du ci du ci mais moi, je ma une motion préjudicielle pour les bu d'accord là, nous examiner la examiner proposition B. mais dafa am une proposition yu ko jiit pas et ça concerne les enfants sénégalais les nourrissons sénégalais leur santé ma donner le 7 mai le salaire des travailleurs du FERA. 7 mai, la situation de l'hôtel et des travailleurs du King Fat Palace. Plus de 70 pères, mères et soutiens de famille licenciés. Le 7 mai, la situation du programme des jeunes réunions. Commission d'enquête parlementaire. Le 30 avril, commission d'enquête parlementaire sur, sur le matériel agricole, les semences et les engrais subventionnés ñu ne premier ministre na ñëw na respecté constitution D'accord? accord waaye ñun dañoo war a d'abord. d' abord suñu kër lan moo tax ñu respecté règlement intérieur c'est inacceptable